di dëkkub sëriñ Abdou Khadir ñaari dëkk yi ki leen moom di kenn muy sëriñ Fallou ak sëriñ Abdou Khadir ñu ko seetoon ci wàllu ndey noonu la demee wàllu bàyyi waxaale wuñ bi war fee teew ngir lu bari war fee teew ngir ak mbokk war fee teew ngir jëmmi sëriñ Abdou Khadir war fee teew ngir sa jëmm damay fàttaliku bi nga fi ñëwee ci kasu rajo bi bi mu lay toogloo ci kaw nunguwoo waaye am na baat bu mu njëkkati dana la yow yaay Sëñ Muntaxa ndax kàddu moo gën a foor ci nit te kàddu ko yaa ko yore sëñ bi moom day xalaatkat daf ko wóor ne démb bi fi ñëwoon lum lu mu fekkoon nga doon ko def da nga ko bàyyi te da lay neex lool waaye day xam ne loolu mbirama bëgg mu dox na mu war a doxee moo tax mu ne naa leen yaatal ba ñu teral seeni gan ba ci ëllëg sa ma wër leen ndax ci soxna may la jóge ci la tàmbalee soxna may nag ba mu fa dajeeg suñu seex dana sëñ seex sa xalifaa ngi nii sëñ Cheikh na ko waaw dama ko nekkal ci liggéey bi rek sëñ bi gis-gisam dafa yaatu ci wet googu léegi kat bala ñoo bala bala maa sori jumaay Ndakaar ji wax na ci lu yéeme léegi man maa jékki-jékki daal ne ñeenti bant yi da doy na waar dañ semp mu ne kon nag bay ba nga jàpp ne yeneen dina ñëw ginnaaw ñett ñëw na kon bee bëgg jàpp ne dinañ dina ñëw fu muy amee nag laa dul xam waaye moom ñeenti bant yi noonu la ko gisee bu doon dugub mooy suuna si doonu ci tiñ ba abba si daa mel ni gopp bi la yoroon sunna dafay ay xeeti xeet am ci yu tondu am yu xóor sëñ Cheikh Bass mii moom sëriñ Abdul Xaadir man damay dégg naan Cheikh Bass Abdul Xaadir man loolu du ma ko wax Cheikh Bass mu sëriñ Abdul Xaadir waaw man ci laa ko jëlee nag moom daa daawul nangu lool. te naa damay roy man ba nag lum saxaloon Cheikh ji li def ca la manoon danaa ci lim lu tuuti man sunni yu dëgg nag la woon moo tax sëñ Moussa mu sëñ Basiru li nit ñi ñëpp sàggane bayiwuma mag ak gone seex ji li moom fii la mane danga wax léegi na magu asamaan mooy fonk ak lii mu yor moom sëñ Tuubaa ko moom la wax fayee ko bor xam naa leer fu ma ko lii ndax lenn lu ne ak koy feeñal waxtu mbooloo may daje fii la liggéeyal sëñ Saliou yu liggéey boo xam ne dañ koy liggéey booba lu tax ci moom mu tax war ko mën a engagé moom sëñ Tuubaa sëñ Tuubaa di ko teg maanaam doonut tey foo xam ne milliards yu mu war a mën a xëcc def ko ci déedéet daa xam ne sëñ Tuubaa yor milliards mu ñëw sàkku ci sëñ bi sëñ bi sax da ko doon ree daal di laaj laaj Moussa Diagne ne ko ndax dana ko mën mu ne ko ñaanal ko rek bi ko sëñ bëgg a jox ay koppar it ngir jàppale muy muy tooli puud yi gor ko gor bu yéeme nga xam ne àndu ceeg mbooloo ay machine la ko defee bi mu bi mu noppee matt bi mu dajale ko nga xam ne boobu sëñ bi daan yittewoo matt bi léegi xalaat yooyu rek moo njëkk a jëm sëñ ndax bi mu ñëwee dana sëñ bi Moussa Niass dana ko boo boo génnoon ci biti gis oto yi rangee lépp matt la ñu mu xam ne oto la ci xel ko moog yeneen daara yi mu buusu ko ne ko yàlla na suñu tubaab liggéey lii mu nekkee nii du ay loo xam ne sëñ Tuubaa ko créé sëñ Tuubaa jëm boppam moo ko def nii mu mel te it safiir la kaana safiiran kuy yéwénal la kuy toppatoo la ndax màggalu màggalu sëriñ tubaak gii di bëgg a ñëw li ciy teew ci ay réew daaw ci teew waaye nag ci aw doxinam la waaye nag li tax nga xam ne sëriñ dafa am continuité alaaji baara ne ko ŋàjj yëmalewu ko dara lu coow li bari bari alaaji baara ne leen man ak moom la ni ko alaaji baara téye sax man musuma gis ku téye maa am ci fulla ak fayda ak xam ni day liggéeyal sëñ Tuubaa alaaji baara daa am lu mu gisoon ci moom loolu ñëpp gis fi ne fi ne bis bi alaaj baara yi wax ndox mi moom la àndal ñu ne ci oto bi xoy yi di wax ni ndox mi day néew yooyu alaaj baara boobu mi ngi jël mbaxana mi teg ko fii xam alaaj baara li ma ci gën a neex mooy balaa balaa wax mbir boppam lay lay woyfal ba noppi ba ba ba ngir won yi fi ne néewut ci fi comme ña jëkk jëkk toog boo ko boo sëñ Mbàkke jëkk ne mas na ko koy njéem a defaral moo ko sëñ Mbàkke bàyyi sama mbaxana mi way xëccaat ko bi bi ñu waxee loolu mu ne ko sëñ Basiiru mu ne ko Mbàkke mu ne ko maa ngi wut nañ gis gis ne ndox maa ngi cat digg am na am na baat. waaw kenn mënta topp ñetti yoon. Euh, Mbacke moom mii nag moom Cheikh Abdoul Karim dama laa wax ay mbiram nga ne ma salimul xalbi baat boobu yokkoo ci baat wàññiwoo ko ci nettal naa ko bërki dem waaye man damay fas yéene lu ma wax man ko wax dag na ma salimul xalbi xol bee mucc te it waaw waaw. jërëjëf Mbacke muy lu jafe waaw mi ngi nii toog de ñi mu àndal Ibrahima Mbengue mi loxoom la xaadim Ndoo mi loxoom la man maa yor kàddu ñi mu àndal ñëpp weg giñ ko weg ngir sëñ Tuubaa waaye weg nañ ko it nag ngir jikko kenn toog ci wetam tudd nit xanaa nga tuddee ko loo ko waaye boo juumoon ba def ko bu la tontoo sax yow fa ngay jógee doo xam fooy jaar moom kenn tilimul ci moom ndax ndax ba ñuy wax gaa yi nii lañ mel mën a déedéet melu leen noonu da ngeen def ay takk takk rek waaye mën na si gisal moom gisin cey lim yatawajahat wa rabbil muslim wallaay dañuy nar a taxe ñëpp oh, waaw ci safaan ba ñëpp ci lañ bokk waaye bu ñu agsee ba nopp nag war a bul war a bil moo tax moom waaye juróom noonu la meroon dafa jël jikko jooju ci rek. kon daal sëñ bi dañuy sàkku rek nga gën koo dolli ay ñaan ndax yoon wi bu sëriñ bi ne woon cëpp fii de dina ko jox loxo ndax mi ngi ciy defar te bis bu set suñ ko wonee ci télé bi bu siyaar bi doon dox sax da koy téye ba seetaan ko ba noppi. ndax foo teg ay kàddoom ak foo teg mel loolu moom moom seeral nañ ko te bis bu set nga seere ko ci moom ñoo xam ne sax moom mi du seen moroom lu baax ngay seere ci rawatina moom mii loolu moom loolu moom yàlla yàlla da ko day sa sax nag far yow amul yow liñ naan salbiya wala ijaabiya yow ijaabiya rek ngay xool ci waaye lu lu lu lu lu négatif doo doo ko xool ci nit li war nekk ci nit rek nga xam ne yàllaa ko ci muy teraanga jooju nga xam ne aaya boobu ni nga ko déggee muy teraanga ji yàlla teral doomu aadama dangay faral di wax ci sa biiri kàddu ni képp koo xam ne jógal nga nit ba ba xam ne jàmmaarloo woo kooka borom ngay jàmmaar lool moom mii na ko ñaanal ndax fi ne màggal gii bawoo na ci tey tey la ragal ragalit ji waaye mu ngi daal di songu Masalik te bu ko songee màggal gu Serigne Touba gi ñëw mu war ko songu xam nga kii noppaluwul moom wutul bala ngaa bég bala sa sedd àdduna bépp daje toog mu boole bëgg a wax ak ñoom ak wax ak addu euh, ñëpp ñu fa ñu fa teewul itam foofu ni ngay yégee ne lii dana dox rek ci la sa xol di sedde da ngay yég ni njuumte du ci am ndam rek a ci am ci waxam moom buy tàmbali rek soxol sedd waaw bu tàmbalee rek bu toogee rek moom balaa tàmbali sax bu toogee rek te war jël micro bi rek bu la neexee nelaw kon nga dolli koo ñaanal bu baax léegi nag dafa am loo xam ne buñ toogoon ak sëriñ Mountakha danañ ko ko wax ndegam ñi ngi toog ak yow nag buñ ko buñ la ko waxee mi ngi mel ni wax nañ ko ko pousse pousse yooyu ngay dégg da cee nekkoon daan ko def di di wut juróom fukk di ko denc ci biir léeg kenn ñëw sàkku ci moom mu def ko benn bis la am ku ñëw ku mel noonu sàkku ci moom fekk puus-puus amu fi mu ne ko demal ba mu am far moo am nag xamatul xamatuñ kañ la man sax la ko laaj ma ne ko kooku nag seetlu naa koy waaye xamatuma kañ la ca suba sa bañ toogee ci garab gi mbooloo mi war a siyaar mu ne moom ay puus-puus nag danaa ko woon nit ñi ñu jox ma ko ma jox ko ñu ko yeeyoo ndax bu ñuy jéggi tëli dal day metti lool dama koy seetlu dal léegi ci la ma wool sëñ Mor Talla mu indi télé rajo bi muy bennoo ma def déclaration bi te bi muy def déclaration bi li ma ci gën a yéem dane sëñ Muntaxa Korite gee weesu la waxoon ne nañ nañ waxtaane makaarimul axlaaq daal ne daal ne sëñ Moustapha sax Moussa Abdou Khadre gis naa ba mu demee Ndakaaru def discours nee na sëñ sëñ bi ma digal ndax moom day déglu moom ma digal ma waxtaane makaarimul axlaaq sëñ Muntaxa ci barab bi muy jullikaay bi wax na fa ne makaarimul axlaaq li fi nekk moom rek moo ko mën a defar mu ne moom nag ndigal loolu sëñ Muntaxa joxe da ci dañ ko war a jëfe lu ñuy wax ci kese nee na moom mu rocc ci nag puus puus yi moom pour liggéeyal ci yàlla ndax njëkke ci ñooñu laysa alallah ma arajun wala alallah arajun wala alal mari harajun te ba mu koy def déclaration dane léegi du ñàkk ñu ma fi indil xaalis nag xaw ma euh, puus puus lu muy jar xaw ma fu ñu koy jaaye man daal puus puus laa wax te na doon yu baax yoo xam ne des na ci mën a teg ay tànk ndax am na yoo xam ne bu ñu ci toogee tànk yi day lang waxuma yooyu Euh, am ñu ko déggee léeg-léeg nit siyaare ko jox ko puus-puus yëkkati xaalis ne ko da waxoon ñu boole ci weccet fekk moom dana woon ci biir loolu suñ demee ba di ko séddale benn fanab safar nag ci la koy tàmbali la wax mu ne ko bis bi sowee ñëpp ci nga ko bëgg a mu ne benn fanab safar buñ ci àggee kuy jël si sa fekk bind nañ la buñ la woowee ba nga di ko jël si man danaa ci boole sama wette weccet sa bopp xaw ma dana bari xaw ma du waaye naa ko ci boole léegi am ñu defee ne daa wax ni nañ ma indil puus bi ak weccet mu waat rajo bi ne waxuma loolu dama ne ngeen indil ma puus-puus bu ñu demee ba ma koy séddalee ku jël sa wàll man naa la jox sama weccatu bopp laa wax man mii maa ca teg ne waaw comme kon comme neexit boo ñëwee boo ko joxee puus-puus na ko wecc du dugalaale ma ko ba tey jëf ju baax la te ba mu koy woote dana ñi nga xam ne maa seen sëriñ ak ku bëgg lu baax daal ne damaa bëgg yéen ñëpp na ngeen jàpp na lu baax la moom waxam da koy waaw Euh, waaw nee na nee na ak waaw da ko da ko wax ne yoon yonent bi dafa ne ak képp kuy nangu laabire ci mbokkum jullitam na ko dal di jëfe yàlla na yàgg te wér nee na xam na ne da fi yàgg di nga wér itam nee sa maam mi ngay liggéeyal juboo naag yàlla mi yàggale tey wérle kon nag ginnaaw sa maam Serigne Touba lii ngay def rek la bëgg kon fokk sa maam di tibb ci li yàlla yor di ko yàggalee di ko wérlee di la ko sotti moo tax faw yow da nga fi yàgg da nga yàgg mbag fi yàgg bu baax